lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax bakkan bu ñam dund da nga ñam faatu muy kooku nga xam ne moo nekkoon àttekat bi yoroon dossier yëpp euh, Ousmane sonk bi ñu ne def fee bàyyi ko am ci ñoo xam ne ñu ngi ciy wax yeneen i kàddu yàlla moo bind bakkan bi ci dat bi mu ko bind mu war a dund am dat bu ca yeggee dafa war a faatu loolu yàlla moo koy bind du doomu aadama moo koy décité xalaxal mawta wala ayaata ndax moom dee la jëkk bind ci dund kon donc dogalub yàlla moo ñëw tom tombe ak loolu loolu coowul addina la bokkut ak dogalub yàlla yàlla waxtu wu ne day dogal ci si fi mu ko soobe ak nu mu ko soobe ndax képp ku man di doon nga jàpp ne sa jëmm moo fi jële bakkan booy seet say maam am nañu dundul te la fa yaakaar naa ne euh, say wayjur am nañu dundul te boo sañoon ñu toog fi kon la leen yóbbu moo fi dul bakken ndax yonent bi lu ko fi jëlee du fi bàyyi keneen kon nag nañu bàyyi lépp lu am ñu wëlbatiku defe ne doomu aadama moom moo ko sabab lu toll ne bakkan ba bàyyi ko suñ borom moo décidé pour jëlee ko fi date ba mu doon dund moo jeex nun tamit ñi ngi fi waaye xamuñu kañ la ñuy jeexal te it kuy jéggi kuy jéggim ndox wërooree ko lab ndax kenn jéggeegul weeru koor la rek feek doog jotagul juubu mu weesagul kon nag nañu delloo mbir yi ca yàlla te bañ ko delloo ci doomu aadama bu ñu teg lii wala buñ teg laa moo waral nangam am déedéet yooyu ay natt la yoo xam ne doomu aadama yi toujours dañ ciy juum bu asamaan si demee nii kon nangam ak nangam diw mii moo fi bàyyi ko wala nangam déedéet nañu xam ne suñu borom moo ñu bind bi mu nu bindee wàcc ni li ci am solo daal man a wamaa xalaxtul jinn wala walinsu ilaa li yax bu doo mooy bind ñu wàcc ñu fi ñoo ginne lu dul ñu jaamu ko te ëllëg dañuy dajeek moom képp koy wax nag man ngaa wax léeg-léeg bokkaale ta doo ko yëg jullit bi buy wax na seet ndax bu yàlla reyee wëratoo wax na keneen a rey da ngay wax ne yàlla moo rey nangu ko lu ko may bokkaale dugg na te bokkaale suñ borom du ko jéggale kenn ku ci ne fi ne la nga war a seet mooy sa sikki bopp képp ku fi jógee nga ñaanal ko njéggal ta seet sa sikki bopp nam toll nga fas yéene caa tuubal suñ borom la ca ñaaw nga rectifier ko la nga jublu nga fas yéene koo rafetal waaye bu kenn yéene kenn ne nangama tax mu jóge fi wala nangama nangam jëm songu fii am na noon yu fi doon songu yónnent bi jàkkaarloog moom te pourtant dañ doon dund ci kanamu yónnent bi yónnent bee leen fi njëkk a jóge mm, yéeme na trop yéeme na liñ mën a wax yéeme na trop waaye dafa fekk tamit yàlla wane na ci boppam bu baax baax te et puis tamit maanaam tuumaal gor mënoo ko def mu yombu te et puis dossier bi soo ko jëlee ku mel ni Sonko ku nekk xam na ne ku kul la jaamu yàlla xam ak liggéey ak dimbale néew gi doole yi ak maanaam gëm te ipi sën la te jafe na ku ni Sonko ñu gis ko si moment yi nekk nii actuellement mu nekk koo xam ne ku sensible la am na xam-xam macha allah bëgg na ndaw yi bëgg na réew Sénégal bëgg na askan bi lu toll ni viol muy loo xam ne lu jafe la lu jafe sise si doomu aadama la su yàlla defee mu dal ko nag nga jël ku mel ni benn jigéen boo xam ne comment dire nit ñi comprendre wuñ ko sax xamuñ ko bu baax nga wax ne dafa Sonko da ko violé ñu jël son euh, dossier bi jox ko ki nga xam ne mooy huitième cabinet mu jël ko joxe ko kooku yàlla jël bakkanam dafay fekk ne que tuumaal góor dafa nekk lu diis te boo tuumaalee góor ren ba déwén mu nekk si yow nga dund ko 100 pour cent jàmbaar dëgg nga wala yàlla jàppale na la góor mënoo ko tuumaal ren déwén nga tuumalaal ko mënul nekk te dossier bi ku ne xamoon na ne maam mënul yomb même même bu fekkee sa waaye génn na àdduna tamit mënuñu bâché wu si ne si lim moo ko rey waaye dañuy wax ne góor mënoo ko tuumaal ba pare kon ne di dundu normalement di dem ak moom mënul nekk soo tuumaalee gor yàlla dan la wan boppam facilement da nga ko gis te Sonko nekk na nit bu nga xamante nii tey soo ko tumaale yu ay viol ah ak loo xam ne at adduna bi yëpp dañ see teg seen bët moom mënoo si nekk mu nekk neen dossier bi mën na nekk neen ni mënoon a nekk naan ñu seq jàmm bàyyi Sénégal mu kóol Sonko nekk si jàmmam Sénégal jëm kanam yaa ngi dégg gars yi Macky Sall yi nag lépp luñ si def ak lu xam ne ñu ngi ko wax si loo xam ne lu ñaaw la wala loo xam ne wax nañ ko loo xam ne waruñ koy wax dañuy tooñ Sonko Sonko maanaam nekk na nit boo xam ne ku kóol la quoi

waaw loolu moom amoon naa amoon na li ñu ciy wax bëriwul moom waaye li ma leen mënti xamal mooy yàlla mooy atte yàlla léegi xale bu góor la day atte ñaar ñu deewagul ci àdduna comprendre nga mais dossier bi ku ko ku ko mënti yor instant bi na ko teg ci yoon na ko teg ci yoon ndax euh, atte yàlla moo gën bu doomu aadama loolu la olof yi wax te bu ma sañoon ah bu nekkee ne dossier vide la ñu libéré may askan wi jàmm yàlla nag mooy reye yàlla mooy reye waaye nag man de bu ma sañoon yàlla di atte borom doole ak néew di doole yi fii si àdduna bala ñoo dem fenn lii day firndeel ne ah lii day firndeel ne yàlla képp koo xamante ne nii jaay nga sa morom doole un jour viendra mu ngi ñëw yàlla wan la ne man maa fi nekk fii yàlla kese fi nekk kenn fi tey kii ba muy jël dossier bi ci loxo ki ko ki ko delloo woon xalaatul woon ne lii mën mën mën naa am ndogalu yàlla bii mën naa am ci kawam te ñi koy ñi nga xamante ni ñooy mujjee dossier bi ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jox ñooy joxe dossier bi nañ xam ne lii jombul kenn ñëpp lay dal noo man na gëw ma ne mystique mu ngi si ndax dee moo jiitu yàlla dee la njëkk a bind bala moo bind dund xalaxal mawta wal xayaat comprendre nga kon nañ jël lépp jiital jiital dee képp koo xamante ne nii moo yor dossier bi di ko atte na atte ci aqulaayi taalaawam xam ne bés dina ñëw mu laloon day jooram bi comme kii yor ko nii ni mu ko defee ndax dee moom jombul kenn kon nañ ko teg ci yoon yaa ngi dégg bu leen leeree ne euh, dossier bi vide la ah nañ libéré askan wi ndax ñun ñu ngi toog nii de mais ba léegi nekkuñ ci jàmm de ndax xamuñu actuellement fan la dossier bi nekkagum xamuñu ko mais lii problème bi li rafet daal ak li jaadu mooy nañ nañ libéré Sénégal quoi ñu libéré Sénégal ñun ñëpp ñu am jàmm comprendre nga ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a jàppal kenn affaire mystique la ay affaire loolu non non man gëwuma mystique la yàlla moo ñëw ak mbiram waaw te mbiru yàlla moom jaam day nangu bu ci kenn tudd ay mystique ak yooyu noonu mais daal li ma la mënti xamal mooy ah nañ xam ne tamit yàlla mooy reye te lii kii def jombul kenn muy président de la république di ki yor dossier bi après di ñëpp ñi nga xamante nii daal ñoo nekk ci nguur gi nañ xam ne lii nii yee la yeete la pour ñoom mu ngi ñëw te ku nekk lay dal ñu bàyyi xel ci loolu te ba na néewal askan wi doole ku ñu ëpp doole woon ko ko loolu yàlla kese moom yàlla kese ko sañ te yàlla kese koy def doomu aadama du ci mën dara nañ bàyyi seen xel bu baax ne bés dina ñëw ñu def leen comme ni ñu def kii. rek gàllankoor fekk la si dëgg la nag yàlla yor dee waaye ñu ngi ñaan rek képp ku koy yoraat na na doxal dëgg rek. dëgg rek lañ ci soxla. defe ne doomu aadama moom moo ko sabab lu toll ne bakkan ba bàyyi ko suñ borom moo décidé pour jëlee ko fi date ba mu doon dund moo jeex nun tamit ñi ngi fi waaye xamuñu kañ la ñuy jeexal te it kuy jéggi kuy jéggim ndox wërooree ko lab ndax kenn jéggeegul weeru koor la rek feek doog jotagul juubu mu weesagul kon nag nañu delloo mbir yi ca yàlla te bañ ko delloo ci doomu aadama bu ñu teg lii wala buñ teg laa moo waral nangam am déedéet yooyu ay natt la yoo xam ne doomu aadama yi toujours dañ ciy juum bu asamaan si demee nii kon nangam ak nangam diw mii moo fi bàyyi ko wala nangam déedéet nañu xam ne suñu borom moo ñu bind bi mu nu bindee wàcc ni li ci am solo daal man a wamaa xalaxtul jinn wala walinsu ilaa li yax bu doo mooy bind ñu wàcc ñu fi ñoo ginne lu dul ñu jaamu ko te ëllëg dañuy dajeek moom képp koy wax nag man ngaa wax léeg-léeg bokkaale te doo ko yëg jullit bi buy wax na seet ndax bu yàlla reyee wëratoo wax na keneen a rey da ngay wax ne yàlla moo rey nangu ko lu ko may bokkaale dugg na te bokkaale suñ borom du ko jéggale kenn ku ci ne fi ne la nga war a seet mooy sa sikki bopp képp ku fi jógeen nga ñaanal ko njëggal te seet sa sikki bopp nam toll nga fas yéene caa tuubal suñ borom la ca ñaaw nga rectifier ko la nga jublu nga fas yéene ko rafetal waaye bu kenn yéene kenn ne nangama tax mu jóge fi wala nangama nangam jëm song fii am na noonu yu fi doon songu yónnante bi jàkkaarloog moom te pourtant dañ doon dund ci kanamu yónnante bi yónnante bee leen fi njëkk a jóge te pourtant lu tax yàlla jikk fee jëlee yónnante bi baleen fi ñoom yàlla mooy décité faatu mooy décité dund kenn mënu ca dara bu wër wërsëg ni mu ko yoree di ko jox doomu aadama bi ni lay dërsiteeg dund fi ne ngelaw lii ñuy dund liñ ci noyyi moom la président di noy moom la kilifa diina gi noy bu tëye woon ngelaw li li ñuy noy ñoom ñëpp ñëppay de kon nag nañu dellu ci yàlla te bañ a jël mbir yi teg ko ci doomu aadama. dossier bi nga yaakaar ne nit ñi ko ñemetee laal ndax gars yi ñu ngi naan ku laal dee. waa état euh, maanaam faw justice moom ala kulli waxtu wu ne mu am ñu ko jiite mu am ku ko jiite loolu mënul ñàkk. mënta nekk noonu ne wëlëng loolu moom dañuy wax rek waaye terewul ñin ko war a dénk bu jotee ki ko ko war a dénk bu seetee ndax mën na koo yor dana ko dénkaane ndax alaakul yàlla am réew noonu lay doxe du caaginti diw am nañu jëkkoon a yor justice te faatu nañ te terewul justice a ngi continuer di dox ba tey loolu moom day wax bu yàqu rek mais terewul nit dana ko yor moom daal la ci am solo mooy euh, lépp luñ lay teg te dara du ca dëgg yàlla xam na yónnent bi xam na lu ñu lay teg tamit tamuy dëgg ba àddina bépp maasee woon ne du yow tamuy yow nga def ko it na la leer ne da nga wéet ak suñu borom te bu ñëpp bu la ñëpp xañee dëgg suñ borom jox la dëgg am nga dëgg bu la ñëpp joxee dëgg suñu borom xañ la dëgg amoo dëgg jërul nit ki di natt boppam ci kenn na natt ci boppam ci digganteem ak yàlla la muy def ak la muy wax ndax ñëpp buñ maasee ne yow a te du te yàlla ne du yow du yow bu ñëpp maasee ne du yow yàlla ne yow a yow la loolu yàlla moom moo koy décider boppam kon nag nañu wëlbatiku dellu ci yàlla une fois am nañ ñu yor justice bi dañ koy con dañ koy continuer ñi ngi ñaan tamit képp koo xam ne dara tiwma wala ay wax dal na ci sa kaw ñi ngi ñaan rek yàlla suñ borom seetal la ca bu fekkee ne loo ca def la lu suñ gëralul suñ borom yàlla na la suñ borom jéggal te bañati laa topp daal